الحمد لله إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله فايدة وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كما تحب وترضى الحمد الطيب المبارك ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك وصلى الله المولى على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه الأبرار ورضي الله عن شيخنا وعن مشايخنا أجمعين وعن أولياء الله السالفين والخالفين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki جلدي mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di ñëw incha allahu ànd ak yéen seen seen bii nga xam ne mooy Ibrahimya TV nekk seen boo xam ne dëgg yàlla liggéeyam bu am na solo te di ko xëjoo mooy jàllale information yi nga xam ne dafay soxal doomu aadama amatan waaye dafay soxal umma islamiya سخل طريقة تجانية سخل دينغا نوني نعم، فايدة تجانية خاصة رفيت لي إن شاء الله وكيد رمان دقيل وقتاني اللي غا خمنا موي جام دنيو نيو تاي وقتاني اللي غا خمنا موي جام مانا نك موي وقتاني ريك لي ني دو سادو دوم ادم دا فا موي سخل دا باي خ غاي توجور مانا لين ينتبه صلى الله عليه وسلم بمي دند نك اك صحابي القران واتي تي موم ديرو 23 ans 10 ans تي مكه ولا 13 ans تي مكه 10 ans تي مدينه القران دي واتي و جولي دي جومي يالا واتي القران نيكو يا رسول الله نلين ني ديفي ني اك ني سون جومتي امي مو جاجي buñ defee lu baax ma encouragé leen charaa bi di wàcc yeneen bi di jàngale ma ne te bi ñu fi jógee jullit yaa ngi continuer di soxla ku leen jàng ñu continuer di topp borom xam-xami jamono topp saxaabatu nabi sallallahu alayhi wa sallam mujj gi ñu dem ba gis suñu saxaaba yi ñu topp taabi'i ni di gëstu ci ñoom xam-xam di leerlu ci ñoom ñooyu dama dema dem bu ñu fi gën sori nag waaw bu ñu nee bu yëf gën a sori xam-xam bi gën a tumuraanke dégg nga yitte doomu aadama yi di gën di wàññeeku may ah jot na nag doomu aadama yi gën na jot na doomu aadama gën a soxla ku leen teg ci yoon maa ngi ci mbokk mi dina junj gàmm mii nga xam ne ma ne su fekkee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale na yare mu dem ba gisatuñ ku ñuy continuer di soxla ku ñuy jàngal di ñu yàq noonu saxaaba yi ñu def nañ délégation ñoo ne ko yaa Rasulullah ñun de toskore nañ mu ne leen moo jaaloo lu ko waral ñu ne ko waaw ñun dañ gis buñ nekkee soloon nga ñuy jàngal li ñuy wax li yàlla wax suñ xol yi dafa aju ci yàlla waaye buñ demee ba tàggoo yoore ba dellu suñu soxna yi dellu ci suñu suñ suñuy doom rek mu mel ni affaire ba dafa dëj ñun daal loolu daal jaaxal mu ne leen waaw noonu la war a demee parce que su fekkoon li ngeen di jëlee ci man ak bu ngeen toogee sama ron ni ngeen di mel loolu dafa continuer mu ne ko noonu yi yéen ay rombal maanaam bëgg leen wax ne ko noonu maqaama bi ngeen ay am mais nag doomu kon mbokk yi maa ci di wax ne dañoo soxla njàngale bi ñu yonent bi dama wax toujours ne dëkk bu mel ni Sénégal jàppee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ki benn acteur film boo xam ne dañ ñëw di la ko waxtaanal di ko tudd ba mu defee nii ba mu defee naa ngay jooy dégg nga di génne sa alal di joxe baax na lool parce que yéen fi tuddee rek ci ku ko bëgg noonu na al mar'u ma'a man ahabba fi ñu tuddee rek xol tooy mais li gën a am solo mooy ñu jàpp yonent bi sallallahu alayhi wa ni ki benn benn guide bu ñu war a topp benn xudwa xasana boo xam ne dañ ko war a topp xam ñu doon dundee nan la doon nekkee waa këram nan la doon nekk ay saxaabaam nan la doon jàngale su ko defee yonent boobu ñun moo mos tax a jóg jàmm ànd ak mbokk yi xew ci jàmm coow li bari na ñi leen naan dafa dagan rek ñi leen naan sax far daganut ñi la sax far dugg ci nag bare dafa xaram ma ne ah lu doy waar la te buñ duggoon ci loola di ko yaatal benn cëslaay mënu ci am ci ne jàmm luñ mën a sikkal ci chariat am na ay dalaay yu bëri moo loola Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu daf ko jàngale ci ñu jàngal mbir yëpp ci cosaan dafa daga waaw mbir yëpp ci cosaan dafa daga waaye nag ci ci aslan dafa dagan waaye ci furuwaay daga ne dee nag wax dëgg yàlla raisin mii dama ne lu muy neex neex lu muy am am sol am na waa yoo xam ne mën naa jël raisin defar ci ab sàngara boo xam ne boo ko naanee man waaye waaye waa ji naan na ci ci ci raisin ndox moo xam ne tax na koo màndi est-ce que dina tax waa ji ne raisin dafa xaraam taxut a xaraam waaye nag doomu aadama mooy soppat ci moom leneen loo xam ne du ci saanam rek moom moo kon yëf loolu moo ci xew waaye mbir yëpp aslan yàlla daf ko daganal jox wàcce ko ci kaw suuf mu dafay soxla éducation l'islam dafay soxla éducation boobu pédagogique bu xam ne dafay ànd ak lii mbokk mi moo waral kam ñun ñëpp xam nañ ne nii ni xam-xam yombee nii ci jamono gënoon naa jafe ñun ñëpp xam nañ ne ni information yombee léegi bu njëkk ci jamono gënoon naa jëf mag ñi jëloon gàmmu def ko mu nekk seen daara def ko mu nekk seen école def ko mu nekk foo xam ne dañ fay jàllale information dañ fay jàngale yar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su ko defee jullit bi mën cee jëriñ ma ne gàmmu li ci nekk ci njëriñ buñ ko doon tudd waaye nga ñëw laaj ma ne ma lan mooy cëslaay ci gàmm lan mooy dalilu ne gàmm mën naa am ma ne la jëlal rek يلا اللي مخ ينبي صلى الله عليه وسلم جاب فوق فكينة يلا دفوق ينتبي في القرآن وكل نقص عليك وكل نقص عليك من أنباء رسل ما نسدد به فؤادك لول جرن لا وقت جرن لا غمان تي دي ген يونت بي يالا دافال نكو لو ما ñaar fukki gamu ak juroom ci alquran parce que ulul azmin rusul yàlla tudd ñaar fukk ak juróom ci ay yonent yoo xam ne ci alxuraan ñun ñëpp nekk ay nit ñu baax ku ci nekk yàlla yoon netti leen ko yonent bi ba pare nag ne ko ah, li tax nag ma la koy mooy seen histoire nga ci pour sa xol gën wax yëpp ci yi pour sa xol gën su fekkee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi xayrul mooy soxla ñu koy nettali la xew ci yonent yàlla Moussa soxla li xew ci yonent yàlla Yaxya soxla li xew ci yonent yàlla Isa soxla ci xew li xew ci yonent Ayuba soxla ci xew li xew ci yonent yàlla Ibrahim demet ba mu jeex yàlla nettali ko kon ngir ne ko sa xol dëgëri ci su ko ab jullit boo xam ne dañ sallam mu jàngee ca jikko yu rafet ba tax bu fa jógee ne man nag yàlla taxu tàggoon na sama yële yi ma ko ne damaa ko si en ligne kon fexeel ma naa fexe ak jikko ju rafet yi ci liggéey ci yàlla yeneen bi kat waxtaankat ba noonu na bu nekkee waa këram nii ak nii la meloon te moom laa bëgg mooy suma yonentu moom la yàlla yebal ci man dégg nga laqad jaakum rasulun anfusikum azizun alayhim ankum harisun alaykum bi rahmatullahi rahimun mbégam moom la yàlla yónni ci man jàngal nañ leen nii la meloon xaaral yonent bi sallallahu jàngaloon nañ ko mënoon a muñ la xaaral ma fexe nekk ku a muñ demet ba mu jeex jikko yooyu la nit ki di jëlee ci kaw moo tax kon nit ki dañ ko wax yow lañ lay jàngal ci sa ab yónnentu ba tax nga man koo roy kaay nga ba ko parce que ko waajur defee dagg la wala waajur koy def nangam déedéet yow yaa am sensu jàng yow yaa am chance dem ci université yi. yow yaa am chance génn dem Saoudi wala nga dem ah, nga dem Qahira waaye am na mag moo xam ne moom yàlla na ko loolu yëpp waaye da nga xëy ñu waxal ko yonent bi na koo xam ne yàlla na ko mos a jàng ci ron tànt yi toog ñu naan ko yonent bi nii la meloon rek suñ maire yi yi bëri na maire boo xam ne bu toogoon tey di leen nekk di xis yonent bi ne dafa jàng lan moo ko may yàgg toog fu ñu koy waxee. maire ba noon na dem ci benn gàmmu toog fa benn gaaw gàmmu yu ndaw yi nga xam ne mu ngi am ci biir réew mi rek waaye commencé di xista yeneen bi nangam yeneen ci bi nangam di nett di xista mu yàgg rek mu tudd mbëtt ma maire bi ne ah mbëtt ma moom teel na bàyyi ñett bu daan gàmmu di ñu jàngale yonent bi sallallahu alayhi bi daanul yegg ci mbëtt ma nga xam ne kon kooka dëgg yàlla gàmmu koy jëriñ kenn waru ko xaar bidaa la nangam bidaa la muy wax toujours ne lu jar a bàyyi xel parce que yonent bi sallallahu alayhi dundam daf ñu jàngal ne lépp lu doon dagal leer na lépp lu waaye nag ginnaaw bu yooyu leeree am na ci diggante bi ay subuhaat inal xalaala xalaala bayyinun wa inal xaraama bayyinun wa baynahuma umuurun mutashaabih mm-hmm. umur mutashabiha yooyu nag mooy jaxase nit ñi gis nga alquran faw ñu interpréter ko faw ñu firi ko waaye ci anam firi yu ñu xam ne firi yu dëppoo ak firi yu ñu jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su fekkee dañ ne nangam bidaa la parce que yonent bi daanu ko def waxuma suñ jamono mais jamono saxaaba yi li nga xam ne tey ñu ngi koy jëfandikoo ci lislaam di ko def jamono yonent daanuñu ko def waaye ci jamono saxaaba la xewee buñ ko dindi woon ci lislaam rek la fi def dugal waaye ne buñ fàtte leen ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu jàngaloon ne aleykum bi sunnati wa sunnati xulafaa rachidi wala sunnati xulafaa rachidi war na ci yéen ngeen ngànk sama sunna man yonent bi ak sunnaay sama xalifa sama xulafaa yi ma fi bàyyi ma ñi xam ne ñu jub lañ loolaa waral buñ ñu jàngalee ñu mën a jënd su fekkoon ne tey ci misaal mbokk bi Seydina Ousmane mu Affan jéemul dara ci alquran su fekkoon ne Seydina Abubakar Sadiq radiallahu anhu ndigal bu ko Seydina Omar digaloon ci ñu dajale alquran dafa bañoon lànk ni du ko dajale ay waaye ko noonu mbokk mbokk ñu bëgg jàng koy jëlee ñaata xarnu ñaata siècle moo dox ci diggante bi su fekkoon ne bañoon nañoo dajale alquran est ce que ñun alquran tey dinañ ko bëgg a te dajale alquran loolu su fekkee bidaa mooy luñ sos ñëpp xam nañ ne alqu dajaleem alquran ginnaaw yonent bi sallallahu kon dañuy fexe di dégg diina wax naa ko mbo benn bis mbokk benn mbokk dafa ñëw ne ma ñun da dañu am mbokk moo xam ne moom bu ñu jullee aj moo pare dafay def bërit mel ni kuy xëptal rek gaaw génn jumaa ñu ne ko lu tax mu ne parce que yàlla ñu wax ci alquran ida qudiyati salaatu fantashiru fil ardi wabtagu bu buñ jullee ajuma rek nangeen ngeen jóg dem dem jóg dem dem dem doxi seen i soxla moo tax moom buñ jullee rek du def baaxeetu saalihaat du déglu dara même bu ñu takk sëy ca jumaa ji sax du ko xaar ma ko waaw ah, mbokk ma nag bu ko def ko parce ngeen ko jullee dem leen xëy na am na lu ko occupé ba mu nag mu ne ma la mooy daf ne ñii toog di xaar leneen ci lu xaraam lañ nekk ne ko déedéet na fexe dégg diin amru yi nekk ci alquran mooy ndigle yi dafa bari waaye ndigle bu ci nekk ak degré bi mu ma ne ko si demee màkk ñu ne yàlla digle ne ñay aj bu kenn rey dara bu kenn rëbb ba aj jëlee pare mu teg wax ci alxuraan ne fa idaa qadaytum dégg nga fa idaa xalaltum fastaadu su ngeen paree lañ leen santoon ci aj dem leen rëbbi ma ne ko est-ce tax moom bu jógee bu paree ci aj gi rek mu gàddu seen mëñ wala gàddu jaasi dugg ci àllu màkk bi déedéet ma ko déedéet def loolu kon su ngeen paree li ngeen def man ngeen a rëbbi mooy lañ leen tënkoon libéré nañ leen idaa nuudiya di salaatu min yawmil jumaati fasaw ilaa zikrillaah wa zarul bay' suñ noddee ajjuma baleen njaay mi njënd mi da ngeen dem soo jullee ba pare nag mu bëgg laa yeewi ne la la ma la nag tënk du ma la tënkoon naa la lii moo waral buñ jullee bu la neexee nga jóg dem waaye tekkiwul nag da nga da war a def bëri rek dem ba ku demul nga jàpp ne ci ci bidaa la nekk ci lu xaraam la kon ñun li ñu sonal mooy ñàkk dégg loolu moo xew ci gàmm yi ma ne ku fi sa xarit am anniversaire di màggal juddum nga dem ca màggal ko ndokkeel ko sa xarit boobu sax mën naa am jëriñu xeer bi daal mën naa am lam jëriñ bëriwu wala mën naa am ña ko jege rek la jëriñ waaye waaye nag yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne mooy rahmatul xalqi asluhu man anaara xissa wala aqlahu kulli ali nga xam ne mooy yërmaane yàlla ci jàmm yi yàlla ne ko dama laa yónni pour ñëpp jëriñ dama laa yónni nga nekk yërmaane ci xeet yi ñuy fàttaliku juddum di ci ma ne su doon fàttaliku rek sax la waaye fàttaliku yonent yàlla Muhammad mooy fàttaliku xam-xam fàttaliku juddu yonent yi mooy fàttaliku njub fàttaliku juddu yonent yi mooy fàttaliku koo xam ne dafa ñëw ci àdduna bu nekk xetti ma ne waay waaye waay buñu añaay ne yonent bi li ko yàlla jabi ñu ne yàlla waxul juddu juddu juddu yonent bi ne nañ ko màggal ci alquran ma ne lu leer ne fang ni ko bàyyi jàngale mu ne laysa fi azhani shay ma tax taaja nahaaru ila dalil boo demee ci dungu mundu daal mu koy ne su fekkee ne dem nañ ba bëccëg nag di laaj ñu def ci dalil bëccëg soxla ñu koy ñuy joxe ñuy joxe dalil naan ana preuve ne bëccëg ci bëccëg lañ ne mu ne su boobaa nit ñi amatuñ xel su dee ba doomu aadama soxla ñu naan ko lii bëccëg la parce que nangam ak nangam moom doomu aadama xamul sax ne bëccëg la kon su doomu aadama boobu war nañ ko seet waaye suñ demee nag ba juddu ko wax ci alquran su boobaa ñun ana suñu xel ana suñu xam leelatul xadri yi waaye ñu si mu su fekkoon ne yàlla waxul ci alxuraan kenn du ko xam moo tax mu tudd inaa zone naw fii leelatul xadri wa maa na bi shahr waaye gàmmu sa yónnent bi bis bi mu judd nga xam ne ci nga am yërmaan imaam bu sëy di jàngale ko keroog ba mu juddoo benn buur bu juba di fanaanu ci la yàlla di leen jàngal ne nag yéen ki moom ki nga xam ne mooy yéen jamono ñoom وساساوة أنغاضت بحيرتها ورد واردها بالغيث حين ضمي ساوة منسين ديغن دان جام نيسنا با ملني فا ندوخ ما نيكون سفرا فا نيك ندير نيس يالا دي دال واخ ني مبوسور جيخ ان بالماء ما بال ما بالنار من ضرم حسنا وبالنار ما الماء ما ملني géej géej la fa nekkoon ci safa ci ndox dafa ba mel ni safaraa fa mucc nekk la nekkoon ca safara sa itam fay ba mel ni ndox fa nekkoon parce que xayru xalqi la mooy judd dafa fekk ci àdduna li ñuy wax mbóosóor li ñuy wax njubadi li ñuy wax yàqate li ñuy wax maandu xadi mu ñëw nag nekk nabi yu rahmati nekk nabi yu dégg nga nekk xawsu ci jamono yàlla bëgg a wax gaay ne leen nag def leen très attention kooku bisu juddum delsi ay jullit dajee ne dañuy fàttaliku juddu dajee wuñ ne dañuy fàttaliku deexam parce que yonent moo ñu aayaloo ne dañuy fàttaliku juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngat ay jikkoom jàngat ay tegginam jàngat ak ay xam-xamam jox ko ñoo xam ne xëj nañ xamuñ ko woon wala buñ ko xamoon itam fàtte nañ yàlla jaaxuñ ci alquran fa dakkir danga dikra tam na nga fàttali parce que fàttali dina jëriñ ab jullit fàttali góor ñuy fàttali ni ñuy jikko yonent bi yar jàng yonent bi nga ne baleen ko loolu dafa wala baleen ko loolu dafa nekk bidaa te bidaa baatu arab la rek bu ñu sonal bu ñu réer ah, bidaa mooy lu ñu sos la lay jàngal ne yëfi du lu yonent bi defu rek kenn du ko def mooy la mu wax ne man sann sunnatan xasanatan walaw ajruha wa ajru man amila bihi ila ila yawm alqiyama mbaax mbaax la yonent bi sax dafa fekk mbaax mais dafa ñëw leeral ko jàngale favoriser mbaax li koy xamal nekk na ci xare ñu jàpp benn jigéen ñëw ñu ne ah kii kat bàyyam ku baax la woon bàyyam da daan dimbale nit ñi bàyyam ko tabe woon la yonent bi ne baal leen ko ndig bàyyam mbaax yonent bi ko fekk nag mooy ki ko ko xamal ba leer ci xol yi leer ci xel su ko defee ñu jàng googu soo ne bidaa la rek yow ñu jël gàmm nag tuumaal ko wala jiñ ko sufiyanke yi dafa mat a leeral sufiyanke yi mooy ñi nga xam ne nekk ci tarixa sufiyanke yi mooy ñi nga xam ne dañu am sëriñ te sëriñ ñëpp a ko am mooy képp koo xam ne am nga ko xam ne moo la ëpp xam-xam ngay dem moo lay jox xam-xam loolu taayifa boo mën a bokk rek ka lay orienté di la teg yoon boobu mooy sëriñ degré yi nak man nañ wuté dama né toujours ki gëna a ci diina moy ki jël julit yëpp def leen ci benn gafak né ño tollo ño yem dédé lool njumté la daa wax ci alquran ne awrasna alkitaba nasbuna safaynaa min ibadi wa minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil xayrat bi alcorane yalla wax né ñun ñoo jël suñ téere bi donaloo ko ñenn ci suñuy suñu jaam ñi ñoo mu am ci nag ñetti catégorie ñoo xam ne ku ci nekk ak moroom dimension bu muy dund ko am na koo xam ne dafay tooñ boppam mooy ko xam dafa nekk topp bakkanam rek te nag bakkan moom boo ko toppee mu sànq la war am am koo xam ne moo ko tax sit bi dëgg yàlla mu ngay góorgóorlu mooy moom moo nekk ci maqaamatu wasutiya mooy ci digg dëw mooy góorgóorlu waaye yeggul ca lef ma nag waaye am na koo xam ne nag saabiqun bil xayraat la ko moom yegg na nag moom foo yàlla soxla fuñ fa fuñ bëgg jullit bi yegg fi yéen bi sens la bëgg ñu yegg fa fa la yegg ma ne suñu yaa ngi lef moom moo leen intéressé moo yàlla santaane jullit yëpp def ko def zawahiri ba mooy shariatu yaa ngi jàngale nañ lan mooy shariatu ne lan mooy mooy taklifu zawahir mbooleem yi nga xam ne cër yàlla sax na ko mu def waaye soo defee loolu nag su la neexee nag nga ne man bëgg naa lu gën a ñu ne mu lan mu lan mu li ci topp ñu ne ah mu ne damay soog gën am fadaa'il nag ñu lan mooy tariqatu mu ne tasfiyatu damaa'ir parce que bëri na kuy julli di xoor di jëf asaka di def nangam fekk mu nga soxor mu nga ñaan mu nga rëy boo fanaan naafi loo bëri sax boo génnee yaa ngi débbali pour ñi bëgg nit ñi xam ne yaa ngi doon naafi loolu gàkk gàkk la su yaa ngi yooyu moo leen moo leen moo leen intéressé pour mu dañ am anfusakum afalaa tubsiruun ñu to bàyyi xel seen bopp nag ba taruñ nit ñi moom Soufiane dëkk dëgg du xaste Soufiane ki dëgg yoonam bu nekk ci nit ñi nu muy def ba jub rek ci lay nekk waaye ak it nu muy def ba dimbale nit ñi ak nu ñuy def nu muy def ba nit ñi baax ci lay nekk lii mooy tax na dafay man a wuuteeg nit koo xam ne moom moom dafa simple jullit kese la jullit du kese waaw mais li ma bëgg a wax rek mooy jullit kilis bu góorgóorlu kooku mooy Soufiane ki moo tax ñuy tànt di tànt li ñu sallallahu alayhi wasallam fu nekk di waxtaan ci moom di tudd ay baax baaxam yokk ko ci faraa'id yi nga farata yi nga xam ne yàlla sant nañu su ko defee nga ne kon yow waa yi nga ne farata bi def nga ko waroo cee teg leneen soo leneen bidaa ngay def déedéet wa minhum muqtasidun wa minhum saabiqun bil xayraat am na koo xam ne dafay def lu yàlla sa doo pare góorgóorlu nag nekk ci yu baax yi nag di yokk ay baax baaxam waaye bu ko ko xeñ bu ko ko yàqal maqaama ihsaan dafa am maqaama islam am a iman am am na ko xam ne ci islam la toll mooy lan tawbatu taqwa dégg nga mu ci diggante taw tawbatu mu ci diggante dégg nga islam ak tawbatu ak taqwa di góorgóorlu ko tuuba ko ndax mais am na ko xam ne yegg na ci maqaama iman kooku itam am na yeneen nekk ci kanam mooy ko xam ne yegg na ci maqaama ihsaan ay maratib la ku ci ne ak fi nga toll fi nga toll na ko nangu tey ñaan yàlla puus la nga yegg fa ci waaye bul ne ki nekk sama kanam li mu nekk baaxul diingat kat mooy ku réer parce que diingat mooy lan mooy ne wër naa diwaan yàlla yëpp wër naa xam-xam yàlla yëpp gis naa ba xam ne yow xam-xam bii ngay wax ne nekkul fi wër naa lislaam masala yëpp dajale naa ko dajal naa ko matal naa ko waaye xam ne masala bi ngay wax nii nekkul wër naa maqaama yàlla yëpp ba xam ne yow sa maqaama bii ngay war a nekk kon moo tax diingat wóoru sooy diingat rek li muy tekk mooy xamoo parce que boo xamoon sax ne lii jaaduwul da nga def attention bu baax balaa nga jaay wax nag bi nga xamul ci mbir ma dara ba pare te naan lii naan kon mbokk gàmmu mooy tànt njëriñ bi sallallahu alayhi wa ngir jàng damay gaa toujours nag ne mbir mi nii la war a demee ñu toog ba mu yàgg ñu gis mu demee neneen mbir ma yàquwut waaye dafa am ku ci wàll te bokku ci itam dafa mën a xam cosaanu gàmm mooy tànk waaye yéen tam ko jàngal abdullah doon alxaaji abdullah ne ko gàmm bu dara lu mooy jàngale yeneen tuuti tuuti way tuuti lan mooy jàngale yeneen tuuti tuuti wax ay jikkoom jàngale lislaam lan mooy woy tuuti xool xasaayid yi nga xam ne borom xam-xam yi nit ñu baax ñi ñu ngi ko doon tagg yonent di ci jàngale lislaam nga woy ko ba nit ñu noppalu seen xel yi ñëwaat nga dellu ko dinaat ko sa bàyyi mu ne ko lii rek ñu waaye loolu lan moo ci ne waaja buy gàmmu ji dafay dem di raas yow yaa gis raas déem yooyu dafa mat lan mooy raas déem mooy nga ne waa dafa dem day di dajee jeeg keneen ca gàmmu nga ko xam ne la yàlla tax est-ce que yow fekkee nga ko est-ce que yaa ko gis est du ñaaw njort moom nga amee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale woon nag xasla daari laysa faslu ma foofu ma xasla xusnu zann billaahi wa xusnu zann bi ibaadi mu ne ñaari jikkoo ni benn jikko gënu leen a rafet mooy jikkoo rafet njort ci yàlla rafet njort ci jàmm yàlla mu ne waaye nag ñaar ñaari jikko yoo xam ne benn jikko gënu leen a ñaaw mooy jikko ñaaw njort ci yàlla ñaaw njort ci jàmm yàlla jullit buy jox jóg rek nga ne dafay defi mbóosa loolu bàkkaar inna ba'da zanni ismun la alquran na ci njort yi loo xam ne bàkkaar beneen bi nga ne fay dajee rek mboo góor ak jigéen jaxasoo góor ak jigéen jaxasoo dajee loolu cosaan la ci mu karam ay góor ak jigéen dafay dajee di xarmaal di def seen aj di jaamu yàlla di ut fay ak yàlla waaye rafet njort gi nga am ci new góor ak jigéen gi dajee ca kaabatu musharrafa dajee ca mënatu munawwara dajee ca makkatal mu di jaamu yàlla di aj nga rafet njortu bu toll ni ne duñ fa mooy yàlla lu baax rek la ñuy wut ne yàlla rek la ñuy wut pourquoi amoon njortu gu rafetee noonu ci waaju gàddu saagam ne maa ngay dem ca Madina Baye Niass dem ci roon borom xam-xam bu mu xëpp xam-xam mu jàngal ma yonent bi su ko defee ma dajee fekk samay mbokk xamante ñoom saafante ñoom ziyarawante ñoom bu bët setee ma ñibbi waaye jooju pourquoi amoo amoo rafet ne kii ci lu baax lay dox ba tax ngay teg ci moom dërëm ngay teg ci dërëm boobu bokki jullit yi ku fi am fisi ko afala tafsir ku nekk ci ñun am na manqué manqué boo xam ne bu nekk mu nga ca moom su fekkee xool nu muy dindee loola wallahi du tal jaam yàlla yi waxoon ne bu ma kenn wax ci nit lu ñaaw ma kenn ñëw naan ma diw nii diw naa parce que bëgguma day sama borom fekk sama xol bi maa ngi jàppal jaam yàlla lu baax lu lu doy waar ok loolu lu bàyyi xel yonent bi yàlla yónni nga xam ne nee na ko inaa dégg nga inaa fatahna laka fathan mubiinan liyaghfira laka maa taqaddama min dambika wa maa ta'akhkhar yow yàlla ne ko maa la ubbee lépp lu baax maa la jéggal maa la toppatu dara lu la neex defal loolay teg yàlla jéggal na la mooy yow daal loo defal yàlla jéggal na man day Aysa ne ko yow sa julli yu bëri doo ko fanaan naafila te yàlla nee na jéggal na la yéen tamit afalaa akuunu abdan shakuuraa xanaa du ma nekk jàmm bu sant yàlla dégg boobu moom moo wax ne bu kenn di wax ayib ba ma leen di jàppal dara parce que bëgguma ànd yëg sama borom fekk maa ngi jàppal jaam yàlla yi yow ngay benn waaye boo xam ne sa sax leerul nga ci deri nit ñi ci jaam ak di xas la ci gën a garaaw say mbokki jullit ngay xas ba pare nga ne yow ci njum nga ne mbokk yi loolu jar bàyyi nañ leen rafet njort ci jaam yàlla nañ leen rafet ci digle lu baax bon bi sallallahu alayhi waaye na yéen bi saa san sant kenn xaste mbokk yi bis bu ñu dajeeg suñu borom bu ñu laaj la loo fi nekkee woon sawaaraate woon nu mu demee lan daan wax ak laa yàlla bu ñu laaj loolu xam nga lu ñuy laaj sa xol bi nan la dikkee yow ma laa yanfau maalu wala banuun illaa man ata allah bi qalbin yàlla mu ne bis boobu mooy bis penc xalal du fa jëriñ njaboot du bëri du fa jëriñ lu koy jëriñ mu ne xol bu sell ci yàlla su ko defee nañ leen fexe xollal xel sellal xol yi ci yàlla nga fexe dégg diina dégg diina mooy nga fexe mën a dëppale diina ak jamono moo gën fuuf rek ngay topp di dugal ak génne lii ci la bokk la bokk ci daf lay tardeel kenn ci ñun yàlla yónni kenn ci ñun du yónneen jotal jotal message yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek moo ñu si war kon takfir waruñu ci diwul yéeféer la diw la muy def dafa xaraam diw nangam loolu warul ñu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne na ñaari jullit saa yu kenn ne moroom yéeféer nga am na ci ñoom fu doo yéeféer mu ne ñaari jullit saa yu jàkkaarlooyee tuumaalante kenn ne sa moroom yéeféer nga yonent bi ne kenn ci ñoom kerek yéeféer la ñu ne ko lu tax ne parce que boo ne ni ki yéeféer nga su doxee yéeféer moo ci tane de fenoo waaye mu ne su duwul yéeféer yow kerek yàlla def la taalam islaam yi lool moo ko tardeel su fekkoon ne duaat yi wootekat yi dañoo amoon yi tëju toll ni waaye ji nga xam ne gëmut yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamul njàngaleem fexe ci sa woote nga fexe bu ko dugg ci lislaam ni bàyyi ngeen daan def bu gàmmu ci daan bu waxtaanee jàngale bi ba pare damay turne ne ana ñiy tuub ñu ne man ak di ñu mu tuubal leen su génnee dugg ci àdduna ci réew fu mu dem di tuubal nit ñi ñam jàngale yar leen ci loolu lañ nekk fuñ dem di tuubal nit ñi di leen yar ma ne loolu mooy mission bi waaye jàkkaarloog sa mbokkam julli di ko xéeféerloo di ko xas masala bi nii masala bi naa loolu moo ñu tarle ni julli bi suñ ko baxoon fexe liggéeyal diina ne Seydina Aboubacar Siddiq radiyallahu anhu doon defee ay futuhaat Seydina Omar mu Xataab daan ko def ay futuhaat jamono Seydina Ousmane jamono Seydina Ali di ubbi di fexe nit ñi dugg ci lislaam ñoom loolu moo leen intéressé woon waaye ñoom li leen intéressé woon nekkul ñoom neen ay julli jàkkaarloo di wit diwaan deka xeex ak kii lii message la bu xam ñu ko doon jàllale lu bëgg wax rek ne li ñuy jëriñ mooy ñu fexe ngeen ko sunna si bi sallallahu mbir ngeen ko dafay fekk nga xam dañ ci ali dégg taraktu fiikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bi kitaaballahi wa sunnati aw kama qaal bàyyee naa ñaari mbir su ngeen ko du ngeen mukk mooy sama sunna ak téereb yàlla bi téereb yàlla bi ak sama sunna bu waxoon téereb yàlla bi rek baax na waaye lu tax mu wax la sama sunna bëgg naa wax ne téereb yàlla bi sama sunna moo koy firi jàpp nga téereb yàlla bi mënoo koo xam faaw nga dem ci yonent bi mu firil la ko yàlla daf ne julli leen xoore la ñuy jullee nii la ne jàpp leen yonent bi ñëw ne ne jàpp gi nag nii ak lay demee yàlla ne na ngeen takkante sëy sëy leen yàlla def seen diggante yërmande yonent bi ne ne nii la ñuy sëyee loolu mooy sunna kon xam ko dafay am solo boo ko xamee rek da ngay noppalu ma ne nag mag ñii dañu yàlla fayal ñu leen dañoo ñëw fekk ñu ci situation boo xam ne mi ak cedd bëri fi lool ay jàmbur dugg fi lool bëgg soppi réew mi bëgg ñoo def lool yeneen ñu am ful la yitte ñu toll ni di jàngale def ay daara def ay école di yar nit ñi di leen jàngal ba tax tey l'islam samp Sénégal yow yu taqdi li muhammadin wa yaabudu rabban jalla shanan waxada Sénégal lu mu yàgg-yàgg dafay ne ci ron yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam loolu mag ñi ñoo ko xeex mbokk yi nag bi nee ba jamono jot ku ne ko xam ne barki dem moo njaay la xew xëj na dem na jàngi fam jàngi ñëw lu mag ñooñu nga xam ne mun naa sax ñoo xam tax nga xam nga bëgg lu ba dem ñoo tax ba nga bëgg xemem ko ba tax nga dem xam mag ñooñ nga ci mi ne da ngay gas te ngay da ngay da ngay topp seen ginnaaw di gas lañ suuloon nga ne da koy sulli lañ dëgëraloon nga ne da nga koy xamal mu ne loolu fi fay naan du si bu defee lii mooy li nga xam ne mooy gàmm ñu bëggoon wax rek ne ñu def ci benn leeral boo xam ne bëgg wax ne ñëpp nañ ko téye parce que bis ñu bàyyee njàngale mi yonent bi rek jël njàngaleem jàmm te bis buñ jëlee njàngaleem jàmm rek ay dal bi dinaa ma dafa waxoon ne نحن قوم حازنا الاسلام ولو ابتغينا عزه من غير الاسلام قدرنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر نه الاسلام موي دين جو خامني مو ني الاسلام موي دين ньо خامني موي جوخ تيراني غيس بو ني ساكوتي تيرانغا تي لينن دور الاسلام يالا تروخو اي سيدنا عمر غيس بو جولي الاسلام بغا اوتي يينن سيفيليزاسيون حضاره xadaaraat yoo xam ne wuti nag xadaara islaamiya rek yàlla yàlla wan ñu ko rek sa ñun ñu gis ko jafe bi ñu nekk yëpp loolu la ñu ko yóbbee ñàkk a tegu ci jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye buñ ci tegoon rek ñu am problème lii lañ waxoon ne ah moom lañ doon indi mu nekk tënk bu ndaw ci gàmmu ànd ak seen seen bi nga xam ne mooy Baye TV li ko tax a jóg rek mooy leeral xam-xam bi xam ne mooy xam-xam bi jëriñ doomu aadama parce que aadama li coow li bëri bëri moom kese suñ sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahima daf ko waxoon ne al ummatu qasdi fihim an asluqoom ila xadrati bari rahim ilahi askan wii xeet wi nent bii li ma bëgg ci ñoom mooy ma xamat leen rek ba teg leen ci li nga xam ne mooy mooy yërmande yàlla teg leen ci pay te yërmande yàlla mooy pay yu nent bi sallallahu alayhi wa sallam kon lii moo doon li nga xam ne lañ ci bëggoon a wax yoo xam ne bismillahumma وسلم على مولانا رسول الله وآله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته